Bienvenue sur Salam Vision. bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwata illa billahi aliyil azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri waxalul uqdata min lisaani yafqahu qawli wa baadu nuxayikum bi taxiyati islaamiya naqulu lakum asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci sidina muhammad ñaan yàlla borom subhaanahu wa taala mu def ñu dégg-dégg jullit def ñu bokk ci njabootu mawlaana Cheikhu Tijaani di ñaan yàlla mbooleem kilifa diine ci réew mi yal na yàlla guddal sa fan di ci jiital sëriñ Babacar Sy Mansour atala amruhu ayyadahu nasara ak mbooleem xalifa yi fi nekk di leen ziyaara di leen baalu àq di ñaan yàlla borom subhanahu wa am ñu bool ñu àq di nuyu mbokki Salam Vision mbokki internet bi ñuy saxoo ànd ak ñun ci jotaay mag ñi tey nag ñoo ngi fii ci géejawaay ànd ak sëñ Habib ànd ak sëriñ Bas di rakk ci sëriñ Habib di généralu Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji di liggéey liggéey bu am solo fii ci géejawaay tey Salam Vision ñoom la àndal ñëw fiite ci géejuwaay ànd ak moom fas yéene waxtaane li nga xam ni moom mooy liggéeyu mag ñi waaye waxtaane li nga xam ni mooy liggéeyu magam jooju teg ko ci loxoom ñu jëm ci programme noto bi ak yenn actualité yi nga xam tamit mi ngi dox fii ci Sénégal sëriñ bi fas yéenu cee leeral képp kuy doomu aadama rek war ci mën a jëriñu waaye laata loolu nag am na am na soppeem am na xaritam am na taalibeem bu ne ci wetam ñu koy wax géewul xadara bi di sekk di koy ñaanal yàlla moom it yal na yàlla gën a guddal fanam balaa ñuy def dara rek tabarakallahu dañuy bàyyi ak Seck moom mi nga xam ni moom moy bunt bi ndax fu ñu mën a dem ñoom rek moom la ñuy jiital seen kàddu mu waxal leen seen i mbir ndax fa tabarakallahu kër goo gis am na ku mel noonu ku la koy defal yàlla dogal nag sekk nag moom mooy daanaka li nga xam ne moom la ñuy wax léegi ci ñoom kon Seck salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz Diarra ñu ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi Salam TV di di nuyu ahlu diine yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina aussi ñi nekk ci diaspora bi mbooleem fu taali bi nekk rek ñu ngi lay gërëm di la ndokkeel di la ziar tey nag ñu fii ci keppaaru Cheikh Mahamadul Habib Guèye tey ñu ngi fii ci keppaaru Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour borom daari tey ñoo ngi fii ci keppaaru Serigne Babacar Sy Malick waaye ñu ngi ci keppaaru Seydi Hadj Malick waaye ñu ngi ci keppaaru Cheikhuna Ahmadou Tidiane Serif waaye ngir ñëw fii ci géejawaay fekk si koo xam ne tey jii moom moo fi sëñ Habib gay moo fi Cheikh Sidi Mahamadul Mansour di jàmbar fàkk tëdd di koo xam ne ci wàllu diine Sénégal gépp naw nañ ko muy Cheikh Mahamadul Basir Guèye ibnu sëñ Habib Guèye mu xaddamu Cheikh Sidi Mahamadul Mansour borom di jàmbar fàkk koo xam ne ci diine ñëpp naw nañ ko ci musta wax koy xeebee lu rafet lay wax jël kër diine yëpp uuf leen Cheikh Mahamadul Basir Guèye fii mu dëkk ci géejawaay ñëpp naw ko ku ci am tudd boo ko yëgalee mu dem tuddal la ku ci am bis muy naqar dina la teewal bu dee bànneex mu teewal la di jël ay kër dëkkal ci ay doomu aadama di leen jox lekk di leen jox naan comme ni ko magam ju baax ci defee foofu ci nutu jabaas di Cheikh Mamadou Habib Gueye kon daal tey jii ñëw ngeen ci nga xam ni moo di généralam di mu xaddamam muy Cheikh Mamadou Bassir Gueye ñu koy ndokkeeraat di ko ñaanal yàlla yàlla gën ko fee saxal yàlla bàyyi ko fi waaye ñu leen di sant di leen gërëm di kontaan bu baax a baax a baax a baax ndax ku yokkul da ngaa waaye jàmbaar ji toog su wax ji bëree du moom bu jëf ji bëree moom la dama ne kii yaay may bàjjam waaye bàyyi may nijaayam muy koo xam ne noonu la juddoo muy Cheikh Amadou Basir Gueye dama ne bëgg sukkar soo ko fekkee mu dégg saa sukkar da nga koy takkal jaj ji rëkkal ko junj ko rek félicitation waaye soo ko fekkee mu dégg saa xorom da nga koy xas loolu nag dalu jàmbaat gi Cheikh Amadou Basir Gueye àdduna ngi lay seetaan ñëpp ngi lay bàyyi xel yow rek la ñuy déglu bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñoo ko dégg ndoon noonu comme ni ma ko waxee léegi rek moom la yàlla dogal tey lépp lu ñuy dugg rek moom la ñuy jox mooy seen kàddu te dañuy wax ne nag ki la jege moo la xam te ki xamul mënul wax ci yow te wax na léegi xanaa danay bàyyi nga nuyoo mbokk internet bi nuyu mbokk àdduna ziyaare leen ñu doog dugg nag ci li nga xam ne nag moom may waxtaan bi sëriñ bi sëriñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa Saas mhm. euh, Jara ñu ngi nuyoo. Mhm. Euh, la wax waaleykum salaam wa rahmatulah. Mhm. Eh, vision mm-hmm. fa tabaarikàlla macha allah di leen di mm-hmm. leen wax ne leen marhaban bikum mm-hmm. ci seen kër ci seen xadra eh, di nuyu suñu loxol ndeyjoor suñu géwél a xadra eh, muy Seydina na Seck xam ne fa tabaarakàlla mooy sunu alaaji Mansour Mbaye mooy suñu alaaji Mbaye Peex fa tabaarakàlla macha allah Euh, loolu la yàlla def. Mm-hmm. macha allah fa tabaarikàlla muy xale bu am jom. Mm-hmm. Euh, di koo xam ne fa tabaarikàlla ku ñu ràññee la. Mm-hmm. ci réew mi ci waxam lu baax waxam lu rafet. Ah, macha allah loola tax Serigne Habib namee ko géewlu xadra. kon ñu ngi ne jël nuyub waa géejuwaay. di ko teg ci loxoom. Euh, ñi ko war a jot yëpp dana leen ko jotaleel incha allah ci kàttanu yàlla. ah di wax ne ñu ngi siyaare sunu Serigne. sunu soppe mm. sunu mag sunu seexum rabbi mm. seex Muhammadul Habib Gaye mu xaddamu sëriñ Mansour si borom daara ji mm. ah fatabaarikàlla di ñaan ngëneelam gën a dolleeku mu gën a am tëbbam Serigne Mansour si borom daara ji mm. waaye ak dolleeku it tegu mm. ca mu am tëbbam Cheikh Ahmada Tidiane Serif mm. te tëbbam Serigne Mansour mooy tëbbam Cheikh Ahmada Tidiane Serif radiyallahu taala anhu ndax xalifaam la woon bu mag boo xam ne biir réew ak bitim réew yëpp nanguloon nañ ko ko kon ñu ngi wax waaleykum salaam wa rahmatullah euh, fa tabarakallahu sax jara bismillah kon Serigne Bassirou mu Serigne Mouhamadou Mansour waaye laata ngay àgg Seydi Mouhamadou Mansour da ngay jaar Seydi Habib mi nga xam ne mooy généralu Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji waaye laata ñuy sore rek ci biir wax ji sëñ Habib dafa am li nga xam ne sëñ Bas moom la Serigne Seck wax léegi léegi nii bu wax ji bare du moom waaye bu jëf ji bare moom la lool lan lañ ciy jàng ñu lan lañ ci mën a dégg. Euh, xam sa bopp rek. Mm-hmm. <laughs> xam sa bopp ndax mm-hmm. gëm sa bopp. Mm-hmm. xam sa bopp ko war a jiitu. fa tabaarakàlla. Euh, borom xam-xam yi dañuy wax ne nit boo xamee boppam xam na yàlla. nga defee nag macha allah. boo xamee sa bopp. jëf ji ne da nga ko teg fu yàlla gërëm. waa doog a gëm sa bopp. waaw allahu. boo xam sa bopp rek xam borom bi subhaanahu wa taala mu mel ni Basir. Euh, ginnaaw bi ñu la sant nuyu da dafa am li nga xam dafa jaaxal ñëpp dañ daan gis rakk day daan xaw a mel ni luy jaloux magam da koy xaw a tatuwaay te yow nga jël lépp yow jébbalaat sëriñ sëriñ Xayib Gueye doxootul sax muy sa mag waaye nga def ko mu sa cheikhu murabbi te kenn ku ne xam ne du si cheikhu murabbi <laughs> tabarakallah masha allah jara alhamdulilah mm. tabarakallah sawar nañ ci tontu question boobu mm. boo ko gisee ñàkk a xam àdduna ñàkk a ràññeeku. Mm-hmm. mais boo amee fatu. Mm-hmm. yooyu yëpp du la dal. Mm-hmm. ndax eh, mag mooy bàyyi. Eh, mun ngaa mag sa papa mun ngaa mag sa yaay mun ngaa mag sa nijaay. waaye sa mag kenn mënu ko mag. waxatuma mag ji mel ni sëñ Habib. Fadala rek la xam ne macha allah lim am. judduwaale la. mu dajeeg euh, xutbu bu mel ni Serigne Mansour mu feeñal ko. Mm-hmm. ah te wax dëgg yàlla macha allah su fekkoon ne yàlla jagleelut ma ko it. Mm-hmm. dana ma jaral ma jéggaani ko ndax man dëgg rek laay wër. Mm-hmm. macha allah fa tabaarakàlla ñun xamuñu suñu waajur wu góor. Mm-hmm. bi may am trois cent defe naa la génn àdduna. Mm-hmm. fa tabaarakàlla. Mm-hmm. moom lañ xam. moom lañ doon dundal. bëri moo ñu ko traceel. ci àddina ñu ñu ci macha allah. fu ñu yegg moo ñu jàppale. Euh, fa tabaarakàlla yoon wi ñu jaar moo ñu ko xàllal. kon nag macha allah nit ku la tunxum. Euh, saa su ne di dox ak yow. Ah, dëgg-dëgg boo sobut. tërëdeewoo. tunxum ba mën naa yàgg. yàlla te ñaanuñu yàlla loolu dal yi mhm. allah kon kan mooy Serigne Habib Gaye waaw Serigne Habib euh, benn jaamu yàlla la mhm. boo xam ne mu ngi askano ci askano ngayan mhm. euh, te fa tabaarikàlla ngayan ku leen xam-xam leen ci alquran mm-hmm. ak xam leen ci cëru nitu yàlla mm-hmm. xam leen ci doon waliyu mm-hmm. loolu yàgg na ci askanu ngayen xatabaarikàlla macha allah ci askan woo la la la sëñ Habib soqee ko ci côté ndeyam ak côté baayam xatabaarikàlla euh, boo jëlee yaayam bu dootoon yaayam bàjjanam la soo jëlee papaam it bu dootoon papaam nijaayam la xatabaarikàlla bete bete bu ñu koy wax mooy sëñ Habib Gaye xatabaarikàlla macha allah fi doomu soxna yi jaar ba xam jaar na fa ba mm. xam li ñu mm. xam mm. waaye fi doomu soxna yi jaarit ba taxawal li ñu taxawalal diine jaar na fa ba taxawal ko diine lislaam waaye fi doomu soxna yi jaarit ba taxawal tariqa tijaan ya wala lenn ci ëttu mag ñi taxu jaam yàlla yi jaar na fa masha allah fa tabaarakaala euh, euh, ma am ma jaaxal nag man woon su ñëwee naa la laaj dafa am ñoo xam dañ lay fréquenté Euh, te du ñu ay taalibi cheikh donte jullit lañ nag waaye fexe nga ba ñoom tey ba ñu fonk julli ba fa saa su ne ñoo ngi yor seeni kurus di wirde ba boo leen gisee da jàpp sax ni ay ay lañ te yaa ngi leen baa ak li nga xam ni loolu lañ gëm. waaw lu lu lu luy secret bi. waaw alhamdulilah jara tabaarikàlla santaat yàlla. Mm. mooy ubbeeku ak yàlla ubbeeku am fàttu. Mm. te loolu ñu ngi ko nàmpee suñu keppaaru mag mu ngi ñuy defal ñun dañoo jàpp ne ba léegi ñu ngi tarbiyee ci seen habib mm. fa tabaarakàlla donte nit ñaa ngi bàyyi xel mm. ba léegi nii ñun dañuy tarbiye wu ci seen habib eh, fa tabaarakàlla duñ dugg ci dara laaju ñu ko ci ndigal waaw luñ dugg it macha allah ma ngi caag ñun parce que xam na ne luñ dugg moom moo ñu jox ndigal waaw fa tabaarakàlla loolu ñu ngi ko nàmpee ci keppaaram ndax boo demee eh, fay ci xadra ba eh, muy noto jabaas Thiès. Jaxaaw mhm. mhm. boo demee da nga fa fekk Baye Fall 1 Baye Fall 2. est-ce que ba ca kaw a kaw fa tabaarakàlla lim bu bëri sax. Mhm. macha allah te ñun ñëpp ña nga jàpp seen sëriñ. macha allah nangul ko. nangul bi ñu ko nangul nag. fa moo tax. Euh, macha allah boo ñëwee. Mhm. Euh, moom mooy namee Baye Fall un Baye Fall deux Baye Fall trois. Uh-huh. Baye Fall quatre uh-huh. Uh-huh. nañ koy namee. nañ fa kenn ku nekk. Mhm. sa pas-pas la nga fa indiwaale woon. Mhm. dem nga fa jikkoom jaxasoo bi nga jaxasoo moom. dem nga ba mujj ne ba ah teema laa fekk si ci li nga nekk. nga jox mu wirde wala kii mu ne la déedéet. Euh, saxal fi nga saxoon mu teel la kóllëre gi bu bis penc ñu dajeeg maam Serigne Touba mu jël sa loxo teg ko ci loxol maam Serigne Touba. waaw waaw noonu nag. tabaarkalla boo. boo ko amee mhm. ci kilifa teete mhm. la ci mhm. dëgg dëgg boot di kenn daf la warul sëñ Habib jataay boo am ak moom moo xam musulman moo xam doo musulman boo toogee ak moom jataay jataay dana la marqué ba nga xam ne boo ci bàyyi ko da nga bëgg a toogaat ak moom wala boo toon ci mbooloo mi dana ngir bokk ci mbooloo mi loolu nag ji koy sang la yonent bi trondooram la ko doonee macha allah kon euh, li li ñu li ñuy gis nii ci yow kon dafa roogalaat ba ci sëñ Habib ndax dañ gis ñoo xam ni nag dañ gis ñoo xam ne tey eh, fa tabarakallahu ñoo ngi ñoo ngi seen tarixa nawu ñuy tarixa tijaan mais fo leen fekk léegi fonk nuñu juli foo leen fekk ñoo ngi kàcc kàccaal te dama leen dégg toujours suñu waxee ñu ne sëñ bas sëñ bas sëñ bas kon fa tabarakallahu kon loolu moo rogalaat waaye moom tamit bëgg naa xam ci moom tuuti ndax bi ñuy njëkk a dajee moom eh, réew mi la newoon mu mel ni kon nga yéen am nañ secret waaw ngeen ji ji ngeen ko waaye jig na leen ah. waaye léegi dem na léegi ba nekk seen TV rawatina tamit doon xëccoo élection yi ba ba léegi ànd ak ki nekk maire waaye loolu nag loolu lan la seriñ bi loolu lan la waaw alhamdulilah sant yàlla jara hmm. tabaarkàlla macha allah eh, mooy li ma lay wax rek hmm. eh, ñun ñu àndal hmm. eh, fa tabaarkàlla daf ñoo bàyyiloo xel yàlla mag ñi bi ñuy sos seen ëtt yi pour ñu dëgëral suñu pas-pas ci diine ji moo taxoon ñoom ñu sos ko moo xam Tiwaawan la Touba. Mm. Yoff Medina Baye. Léona mm. Niassène. Mm. Eh, fa tabaarakàlla foo jël ci këru mag ñi. looloo tax ñu sos ko. dafay koo ci toogal rek. uniquement da nga koy fàttali yàlla. Eh, jataay ba da koy fàttali yàlla. wa illaa su fekkoon ne am na lu mu réeree ci boromam. au lieu que nga jël yar jubbanti ko déedéet. ci sa doxalin rek lay xool mën a bàyyi xel borom bi. bàyyi xel doomu aadama yi muy jëflanteel. boo gisee kay fa tabaarakàlla su fekkoon Euh, wala amuloon fu ma jaar ak sama kilif fu mu jaar ak man mhm. bu ma dugg see ndakaaru euh, la góor yàlla nga waxoon rek mhm. nee na ndakaaru nit jot na fi wilaay ba taay waaye wilaay yàqu na fi ba taay mhm. kon nag fa tabaaraka yàlla konoon loolu mën nañu gaar ndig yàlla tare waaye nag biñ àndee ki nga xam ne fa tabaaraka yàlla ànd naa xut bu samaan bu mag mu def ci moom li mu def ci moom moom it mu def ko ci ndaw ñi euh, tàmbalee ko ci man muy première muqaddamam fa tabaaraka yàlla macha allah te dégg naa ci làmmiñam it maay première taalibeem Mm. kon nag fa tabaarikàlla yëpp nag mm. dama koy sante yàlla mm. eh, fa tabaarikàlla duur lu ma ko jëfal eh, ndax li ma defal moo doon fay di fay bor ba ba weextaal ak déjaayi mënu ma koo fay fa tabaarikàlla ndax macha allah fu doon fare fare ah, macha allah mu mel ni kon kilifa dina naw njaboot waaye njaboot dina naw kilifa mm-hmm. mu mel ni sëñ Habib mooy sa kilifa mm-hmm. waaye man am naa yaakaar ne dina la naw mm-hmm. li tax dina la naw mooy nit defar na nit tamit mu génn daf nekk naka sudul noonu kon boo nekkee fii ci ndakaaru fii ci géej yaaw waxuma saam waaye léegi fépp ci Ndakaar bu ñu wanee sëñ Bas ñu ne muqaddamu sëñ Habib Gaye ki nga xam ne tey moom mooy taalibe mi day yaatal gi muy yaatal fii tarixa Cheikhouna Tidiane kii wax na ko léegi-léegi dimbali bi ngay dimbali doomu aadama yi kon loolu kon sëñ Habib dina la ci naw ndax tamit nag boo fi nekkee woon neneen dina sëgg waaye tey bu duggee biir Ndakaar dina siggi kon yal na yàlla gën a lafal cat yal na yàlla gën la sàmm lan mooy indi tey diggante relation sëñ Habib xam naa moom sax bu toogoon ñàkkul yoo doon di nga am lu ñu ci mën a wax diggante moom moom Seydi Mahamadou Mansour muqaddam muqaddam xaddam bu mag boobu wala kilifa gu mag boobu borom daara ci masha Allah radiyallahu taala anhu hmm. yàlla na yàlla yokk leeram hmm. eh, te gën ñee taas ci barkeem hmm. damay faral di wax ne fu leerug yonent yàlla Muhammad nekk leerug Cheikhu Tidiane nekk fa radiyallahu taala anhu yàlla na fa yàlla saxal leerug Serigne Mansour eh, yàlla na yàlla dolli ko ngëneel mm, eh, ku baax a ngi yoon jullit piir a ngi noonu taalibe mm. Seexu Tijaan bu mag a ngi noonu mm. muy Cheikh Mamadou Mansour mm. borom a ji eh, ndax saan ndeysaan tabaarakàlla di nga gisee jaxasoom ak sëñ Habib di ko sëñ Habib di fekki ci ndigalu maamam jur yaayam eh, fa tabaarakàlla eh, leetar bu mu bindoon na ko def naa am na lu ma tàmbali ci yow waaye dana am góor yàlla bu mag xutbu bu mag wali bu mag boo xam ne mm. fa tabaarakaal da nga dajeeg moom jamono mm. mooy yeggali sa tarbiya mm. fa tabaarakaal masha allah bi nga xamee ne ñëw na 1990 yaakaar naa su ma jumee ci date bi nañ ma ko baal mm-hmm. ndax nit moo mel noonu 1990 mm-hmm. bi muy dajeeg Serigne Mansour mm-hmm. fekk booba tout tànk la fukki at ak juróom-ñett sax matagul fa tabaarikàlla macha allah waaye mbëggeel lu xaas gi ko yàlla defal Cheikh Mamadou Mansour tey moo jur lii yëpp mu am tey ndax bëri na ku fa jiitu te yàlla li mu ko wërsëgal ci Serigne Mansour wërsëgalul la ko am na ku ko fa mujj mm. it la ko yàlla wërsëgal ci Serigne Mansour wërsëgalul la mm-hmm. kon nag euh, mbëggeel ak xaas googu mm-hmm. la ko yàlla defalee xaas ci Serigne Mansour mm-hmm. borom daara ji ba nga xam ne bu ne tëll rek da naan moo ko jur ci bret moo ko jur ci ruu lépp ñaari njureel yëpp da koy nangu tabaarikàlla macha allah ah te muy dëgg ndax euh, kilifa gu mag daan na wax ne ñaari mbokk moo xam mbokk pas-pas ak mbokk deret waaye man li ma gën a dund mooy mbokk pas-pas mm-hmm. kon fatabaari kàlla mm-hmm. sëñ Habib tey lu mu mel mm-hmm. ah la sàmm sëriñ Mansour mu mel ni li sharia wax moo ci nekk mu ne mbokk pas-pas moo ëpp doole mbokk deret ndax nit mën nga bokk moom nekk bàyyi mu dee muy chrétien doo ko doon te sa mbokk pas-pas foofu mën na taxaw doon kon foofu mbokk pas-pas moo ëpp doole mu mel ni waxal nga ko léegi ci biir wax mu mel ni kon si xayu dinkaane mag la ndax boo xoolee dañ ko jox ni ko demal di nga dajeeg nitu yàlla mu mel ne li alpha mi yore wele defoo nag suñ maam Cheikh Omar Fouti yi mu mel ni kon yooyu euh, ba tey kon mi ngi am ci àdduna kon say xay bi yàlla na yàlla gën a guddal fanam waaye tamit mu mu mu jël Seydi Mouhamadou Mansour ci dox bi ci wax bi mënu toog cinq minutes yoo xam ne du waxtaanee sëñ Mansour loolu lan la cofeel rek la wala lan mooy mbëggeel ak xaas gi mooy mbëggeel ak xaas gi te wax dëgg yàlla fi ko sëriñ Mansour yegg mm-hmm. eh, la xàmmee ràññee mm-hmm. fi ko sëriñ Mansour yegg mm-hmm. mbindeef yeggut ko fa fa tabaarikàlla macha allah loolu nag ah tabaarikàlla li ko waral eh, mooy macha allah dafa nangu kilif taate ba kerek muy ñëw ci loxol sëriñ Mansour ni muy tàbbi ci loxol sëriñ Mansour parce que jafe na eh, nga gis kilifa goo xam ne yàlla booleel na ko mm-hmm. ñett mm-hmm. Eh, am na xam-xam am mm-hmm. alal am mbooloo ba pare nag tegu ci yoon yu ko kilifaam teg mm. fa tabaarakalla mm. Cheikh Mouhamadoul Habib mm. diggante moom Serigne Mansour boo ci doon wax fi jant fenke ba fa jant soo da ngay mosal jaam ñi rek waaye ma mënoo koo dajale so defee nag yàlla mi leen boole woon moo xam dimension boobu so defee nag euh, moom ci boppam sax la ca xolam dëgg ci Serigne Mansour làmmañam lott na ci génnee ko virgule ko ba nit ñi di ko xam nag su ko defee ah, masha Allah fu mu mën a nekk lay secret ba muy jëriñ jaam ñi ba jaam jaam ñi di ko jëriñ mm. di jëriñ mm. ak ci baatin mm. di jëriñ jaam ñi ci saayir ak ci baatin ndax tabaarakàlla li loolu boo ñu ko waxee dañ ko gëm waaye am lu ñu bëggoon xam sëñ Basir mm-hmm. sëñ Basir kañ nga dugg Ndakaaru waaw alhamdulilah 1997 la ñëw Ndakaaru mm-hmm. tabaarakàlla mm-hmm. macha allah waaw dañuy gis ni taalibe bi mësaan wàcc fenn dina am ay xat-xat wala mu am ay jafe-jafe ni nga duggee ak Dakar ba léegi ban xar-xar nga fi am wala ban jafe-jafe. waaw alhamdulilah sant yàlla beneen yoon mm. tabaarkàlla bi may dugg ci ndakaaru euh, ci kiliftaati laa fi duggee mm. moom moom ba tey li ma lay wax rek yoon mm. bi ma xàllal fa tabaarkàlla moo ma ne boo demee doxalee nii fa tabaarkàlla orientation yi ma jaar macha allah benn esagu ci te yàlla bu ci benn esag amiin amiin amiin orientation am la fa tabaarkàlla ñëwee fii ndakaaru 1997 maa ngi dal Cambérène 2 mm-hmm. sama kër nijaay boo xam ne moo ak sama yaay ñoo bokk papa mm-hmm. fa nekkoon ah, fa tabaarakàlla macha allah euh, lépp lu doomu soxna di fàggu góor mm-hmm. euh, macha allah euh, góorgóorlu nañ ci gannaaw bu njëkk ko ko ñëw nañ fii góorgóorlu fa tabaarkàlla yor nañ fi taabul lañ fi njëkk def ci kaas ba di yu sew jiyee koo ci ambila juróom-ñaari at def nañ ko ambila marché ambila mhm. fa tabaarikal doon jaay mbuus mhm. fa tabaarikal macha allah mhm. euh, loolu nag ay jaar jaar la macha allah fa tabaarikal la defee nag euh, yeneen yi nga xam ne mun naa la ko seedeel mm-hmm. mooy ndakaaru bi ñu fiy dugg si mm-hmm. eh, dugg seewuñu fi ci matadi mm-hmm. ci suñu matu kilifa Cheikh Mahmoudou Habib lañu dugg see moo tax eh, fa tabaarakàlla lu ci bëri eh, ñu ngi ko doon bàyyi xel ne dañ yegg si fii waaw xëy na ñenn ñi bettoon na leen waaye ñun xamoon nañ ne fii lañ bokk lii lañ yebee fii lañ jëm moo tax fa tabaarakàlla muy wàllu sabar muy wàllu làmb mu mm. yooyu yëpp fa mm. tabaarikàlla masha allah mm. euh, mosuñ ma e gis mm-hmm. euh, lu dul euh, liggéey mm-hmm. ñëw toog su ma waree jël alquran kaamil mm-hmm. bi jël su ma waree jël kurus gi jël kurus gi fa tabaarikàlla ba léegi nii ci loolu la nekk masha allah mu mel ni loolu boo ñu ko waxee duñ jaaxal ndax Seydina Mohamed sàmm na Seydina Mohamed jaay na loolu lépp da ko doon làqatoo teewlu xamoon na ni moom moo war a nekk xaatimi nabiyyiina wa imaamul mursaliina kon yow boo ñëwee fii nii tamit sa mission rek nga doon mottali mu mel ni fi Seydina Mohamed jaaroon tegoo tànkam rek nga teg sa tànk Seydina Mohamed Mansour jaay na bay na jaay na mi nga xam ne tey moom mooy seen yaakaar mooy seen repère ku leen di nax ku ne ci mu leen di naxee muy sëñ Habib muy yow ku leen bëgg a nax na leen naxee Seydou Mahamadou Mansour su weesoo Seydou Mahamadou Mansour nan leen naxee Cheikhou Tijani kon yal na yàlla barkeel mu mel ni sëñ Habib tey sëñ sëñ sëñ Bass tey bu ñu amoon li ñu lay tey ci ci ci géejuwaay tey ban yéene nga am tey ci géejuwaay bi nga nekk tey. tabaarakallah alhamdulilah comme nit yàlla yi yàlla yàgg dox ci barab mm-hmm. euh, am na ci nit yàlla yu mag mm-hmm. yoo xam ne xëy na fekkantu fekk ñoom mm-hmm. Euh, fa tabaarakàlla nekkoon nañ géejuwaay mm, mm. euh, macha allah di borom yi cër mm. euh, ku ci ki ma ci mujj dégg mu nekk fii doon borom cër fa tabaarakàlla nekk ci kër gu mag di sunu kër maam Serigne Touba Serigne Abdou Karim Mbacke makaarimal axlaa yàlla dogal na jotuñu gisante nag ci ci saayir nii ah. mais dégg naa nekkoon na fii macha allah nga defee mission yooyu góor yàlla yi doon dox moom lañ fiy dox mhm. euh, fa tabaarikàlla ci kaw ndigal mhm. wax la ne la tey jii nii liñ am yéene bi ñu am ci géejuwaay mhm. yéene bi fi nit yàlla yi am euh, te it niñ fi toogee ndigal la macha allah tey fi may wax ak yow nii su ma sëriñ bi woon tey tey na ma ci kàttanu yàlla ñëwal nga dem féete woon nooto lépp lu ma fi am macha allah dama koy boobu dem féete woo fa mm-hmm. ndax loolu lañ xam mm-hmm. loolu la ñuy dox ko mm-hmm. defee euh, jataay bi fii jataayam la moom moo fi toog toogloo moom lay xool fu ko soobee ak mu ko soobee mu doxalee ko noonu tabaarikaal nañu defee leen ko nii incha allah fa tabaarikaal macha allah euh, beneen ba ci desit Euh, muy ñoom Seydina Omar ñii mm. fatabaari kàlla ñu jàpp leen ci mission bi fii mm. ci géej waay mm. euh, ndax tey macha allah ñun fu ñu yegg ñooy suñu accompagnement ci saayir ak ci baatin euh, ci saayir bi mooy lépp loo xam ne bët tegee na ko fatabaari kàlla lépp loo xam ne bët tegee na ñu ngi ciy ànd ak ñun lépp loo xam ne bët tegeewut koy ñu ngi ñëw di tëjoo ñun di ci laaj xalaat waxtaan ak ñun ñu leen di ne leen defee leen ko nii waxee leen ko nii fatabaari bàyyi xel daal ne. Mm. dëgg ma leen magul ci mm. Mm. loo xam ne sax bëgg naa cee ñëw waaye balaa ma ciy ñëw rek xam naa day ne day nekk tëjug émission bi ñu waxtaanee ko waaye balaa ñu si agsi rek mooy ma jox euh, sëñ Umar comme ñu dañ jëm ci wàllu nooto te moom mi moo yor seen kàddu. am na lum ci xam loo xam ne war na ko mën a wax ci li xew ci noto bu ñu nappee ñu laaj la ci noto ak lu indi noto kon seen naa Omar kon ñu bàyyi la rek nga joxe ci xibaaru noto yi. jërëjëf oustaz Diarra ñu ngi rafet rafetlu bu baax kàddu yi ak laaj yi ku la déglu xam ne borom xam-xam nga te ñu mel na yow yéen a war a wax ci micro ñu ngi lay sant bu baax di la ñaan sant yàlla dëggal sa baat sëriñ bi dama wax ne digganteem ak sëriñ Habib Gueye mu xaddamu Cheikh Sidi Mahamadul Mansour mel ne diggante maam Thierno ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul noonu la ñu àndee ñoom ñaar Serigne Bassirou fii mu ne ci géejawaay bari na ndaw yu bari yoo xam ne ronoonu sànku tey jii moo leen defar teg leen ci yoon tey këram gii fu ne la leen di jóge muy recevoir suba bu ngoon day tëju nit ñi ñëw amul kilifa gu dul ci kër gi ku ne góor na fi muy nga nekk président wala nga nekk ministre wala nga nekk directeur général dañuy ñëw fii toog góor sàkku fi ñaan mu ñaanal leen lu bëgg mu ñaanal leen ko day nangu ndax nag sëñ Bass bi ma ko xamee ba léegi ci géejawaay laa dëkk mosuma koo gis mu jox loxo jigéen am yar am teggin dëgmal rek xool nag si Amadou Habib Gaye bëgg loolu Seex Tijaan xaw ma kan mooy ñaan yàlla de bañ waaye kii bokku ci ndax nag fa mu tibbee la Seex Tijaan rek la fees ma xam ko si Amadou Basir tey bari ay ndaw yoo xam ne yor nañu ay daamar bu ne woon damay dem fenn kenn ku ne da gaari sa oto na ko sëriñ maa lay yóbbu tey bi ñu ñëw fii andiwuloon lu benn ëmb waaye tey sëriñ bi ne woon na ko sa kër gi ngay am foofu ci géejawaay mooy su ci géejawaay boo génnee fii étage bi ne fii ci ginnaaw fii jàkkaarloog mairie bi moo ko moom lépp lu doomu soxna di am am na ko war waaye am na ko kon loolu look ko sëriñ bi am na te place ba mu nekkoon doon fa jaayee te ku ne xam na ni Rasulullah jaar na ci commerce ba mu fa jaaree place am ba tàkkoon bi place bi tàkkee nit ñëpp dañ ko yërëm naan sëñ bés nangam nangam mu ne lu waay mu ne li des fii ci place bi lu waay jël yaa ko moom may naa la ko waaye tey boo demaatee ba xool place ba place ba jur na yeneen place te ji am na yeneen loo xam ne sax moom du bëgg nit ñi di ko wax waaye loolu lépp ay doomu aadama la jël teg leen fa ñu fay daan seen doole di ci dimbali seen i waajur yor na fi ay nit barki démb am na koo xam ne tey bi ko sëñ Babacar si feeñoo ne ko damaa bëgg nga ci diine l'islam muy Babacar di honoré sëñ Basa ko yor fii ci kër gi mu nekk fi barki lañ ko ñaanali soxna mu yor ko ci kër gi di ko jox añ di ko jox reer kon yu mel noonu dafay baax nga koy wax téléspectateurs yi ñuy setaan ngeen xam ni jàmbaar ji daal mu ngi fii ci géejawaay nekk ku baax ñu ñuy ànd ak moom day suñu dajeek moom yàlla ñu dimbali waaye liggéey liggéey luñu yàlla lu tax mu boole ñoo jàmbaar ji liggéey luñu yàlla lu tax mu boole nag Cheikh Mahamadul Habib Gaye sëñ Habib nag day jàmbaar fàkk tëdd di koo xam ne ci réew mi bari na ñoo xam ne ci réew mi tey ji kenn ku ci nekk góor ga këram ci président de la république lay tàmbalee ñëw na këram toog fa jàkkaarloo moom ànd ak soxnaam bi mu dikkee toog na ko sëriñ bi dama bëgg nga ñaanal ma yàlla dimbali ma sama diggante ak Ablaye Wade jàmm am ci mu ne ko yàlla xamal ne ma sa diggante ak Abdoulaye Wade jeex na jox naa la réew mi am na ñoo xam te ay ministre lañu tey ñu ngi fii yor ay fonction sëriñ bee leen ñaanal am na ñoo xam ne ay maire lañu sëriñ bee leen samp tey gi fii la ñu toogoon Ahmed Aïdara monsieur le maire fii la toog ci kër gi ñëw na fi benn ñëw fi ñaar quatre ans ci ginnaaw ñëw na nooto jabaas sëriñ bi ne ko demal nga jiite mu julli mu jiite sëriñ bi julli sëriñ jël ñu bëgg sëriñ Cheikh Sidi Mamadou Mansour na ko solo na jox naa la mairie bi tey Lat Diop mii nga xam ne mi ngi géejawaay bi muy ñëw foofu maa ibaa ko yóbbu mu ànd moom bi mu demee sëriñ bi ne ko fii nga toog mu wax ko li mu bëgg sëriñ bi ñaanal ko ne ko balaa ngaa génn président woo la avant muy génn la ko président woo ñu fal ko ronaas kon sëriñ na fu mu jaar ak yow mais du wax bari na ñoo xam ne yaa ngi leen di dégg télévision bi foo am na fa njaboot man mi keneen ak keneen muy ñoom Kouthia ak Lamine Samba ñëpp foo dell ñu sëñ Habib Gaye mu xaddam Cheikh Sidi Mamadou Mansour sëñ Mansour ko jox prise bi muy brasé ku mu ñaanal mu nangu man bi ma dajeek moom fi ma egg tey jii tukki naa dem naa fu ne ci àdduna sëriñ bi waxoon na ma lépp kon nag sëriñ bi dañ koy ñaanal yàlla yàlla saxal ko fi nootu jobaas gee nga xam ne fa la nekk dëkk boobu dafa nekk dëkk boo xam ne góor yàlla yi ko doon wër bari waaye yàlla ci moom la ko teg ci ndax ki nga xam ne mooy sëriñ Saliou Mbacke dëkkul na ci dëkk ba toog nee na leen dëkk bii dina am koo xam ni dina am jumaa ju fi tabax ku jege Cheikh ma Mamadou Mansour Mansour borom daara ji la moo tax bi sëñ Habib ñëwee tey naal fa jumaa jooju noonu ñu tàmbale ko ci vingt deux milliards mu defagum ci lu ëpp deux milliards ku fa dem ba xam ni jumaa ji di nga xam ni suñu Habib liggéey na kon gay ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga dund ba inauguré jumaa ji waaye bisam boobu nga xam ne da ko jagleel Seydina Mohamed ku nekk fay ñëw waaye maam Malick si mu Cheikh Sidi Mamadou Mansour borom daara ji moo koy précisé su ñëwee waaye àjjuma gi day am xadaratu jumaa Aliou Diagne mi nga xam ne mooy ñëw saa ñuy def xadara Aliou Diagne ku ne xam na ko keroog bi muy dem TFM nu invité ko ah waaw muy dem lay ko téléphone woo sëriñ bi na ko maa ngi dem TFM musuma dem ci télévision mais tey laa fay doog dem dama bëgg nga ñaanal ma am lu kenn musa am sëriñ bi ne ko demal di nga fa am lu kenn musa am keroog la dem toog ci télé bi wax ba xalifa général des Tidiane yëkk téléphone am woo ko musa am ci àdduna c'est la première fois kon la ko sëriñ bi ñaanaloon am na ko oto kon moom xam na kan mooy sëñ Habib am na fu mu jaar ak moom ñeneen ñeneen bu fi nekkee di lim day gudd waaye dañ koy tënk rek pour wax leen ni sëñ Habib moom bu ñaanee mu nagu baax na sëñ Habib ba ngi nii mooy moom mooy ñoom ñaar benn lanu sëñ Habib moo doon Cheikh Sidi Mouhamadoul maasu ci ngor ci jom ci xam-xam ci taba ci mën a joxe boo demee kër doo xam xàmme murit doo xam xàmme laayeen doo xam xàmme njaasaan doo xam xàmme canaba ndax fa mu jaar ak waa kër Baay Ñas fa mu jaar waa kër maam borom Touba noonu la sëñ Habib mel boo demee sin ngayeen mooy seen sag mooy sagu réew mi sëñ Habib fi mu may nii sëñ Habib si nee na ko waa Espagne dañoo bëgg nga ñëw seet suñu taalibe yi nekk foofu ndax buñ la jàkk rek seen xel ci suñu bàyyi dem kon xam digganteem ak jamil si mu Cheikh Sidi Mahamadou Mansour borom daara yi am na tool yoo xam ne fii la nekk këru Cheikh Sidi Mahamadou Mansour bi nekk jam ñaajo biñ ko bëggee nangu keroog maa fa moom la jamil woon na ko ñëwal sama bàyyi la moom moom kër gi te gars yi dañ ko bëgg a nangu te buñ ko nangoo bu ëllëgee buñ dajee moom danañu sanctionné sëñ Abib taxaw keroog woo taalib yëpp na nañ ko miiree bi ñu yegsee taxawee ñu commencé jël ay gop jël ay peel commencé liggéey te ñoo taxaw tuuti sëñ Abib taxaw kam kamal xool gos xool duwaan na ko sa laa fanaan mu Cheikh Seydi Mamadou Mansour mu yëkkati ay milliards ne damaa bëgg jox sëñ Habib ay milliards pour mu liggéeyal xadara mu ne ko sa bàyyi waxuma loolu dani ma loo bëgg demal jaaxaan kon sëñ Habib moom xam na kan mooy Cheikh Seydi Mamadou Mansour Jamil si xam na kan mooy sëñ Habib ne ko yow la sama baatin bi ba mu ko joxoon ba bari wal buftu bi képp ku tooñ tarixa seex moom lañ jox koy duma sëñ Habib kon nag loolu lañ doon sànni kàddu rek di la wax ni daal mënuñu woon wax ci micro bu ñu melee nii sëriñ bee ñu defar moo ko def ci ñun ànd ak moom mooy suñu ndam nekk ak moom mooy suñu ndam ndax ànd ak moom mooy suñu njiglaay sëriñ bi ñun bu ñu bàyyee ci ñun lay ci ñun lay metti ñun bu ñu ko bàyyee ci ñun lay metti kon ñun li am mooy jàpp sëriñ bi téye sëriñ bi sëriñ bi di wax ci moom mooy suñu ndam bu ñu toogee ci rajo di ko tudd ñun ñoo ci am ndam lu ñu koy gën tuddee rek suñu bi di gën jëm kanam sëriñ bi ñun mënuñu koo defal lu ko Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour defalul amul dara lu fees fees bëtam xormaal na ñëpp fonk na kër diine yëpp bëgg na ñëpp waaye Cheikh Sidi Mouhamadoul Mansour borom daara ji moo sim cereem. jërëjëf kon fa tabarakallahu comme ni ma ko waxee rek léegi léegi ku tàqamiwul ku ñamul mënoo tàqami te sax ku ko dégg mi nga xam dafa dafa ñam moo tax mu tàqami ci ci dëggal yi muy wax rek ci sëñ Habib am na ku ne fii ku ñuy wax jara moo nekk maire Pikine Nord opposant la bi mu ñëwee ci sëñ Habib jokk xadiyam sëñ Habib dañu ko di nga dem ci gouvernement bi ñëpp a jaaxle ni ko lay demee ci gouvernement bi te opposant la waaye dañ ci teg ay weer rek Macky Sall nga xam ni ko waaw ah. Ah. waaw waaw ma ne ko boo bëggee président sëriñ bi defal ah. la. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg dëgg li nga wax rek. di dëggal ci may yi ko yàlla may. ndax innal fadla bi yadillah yuti man insha wallahu zul fadl azim ñaan mu nangu léegi du ñëpp ko mën. waaye am na ñu ko yàlla jagleel. ci ñi ragal yàlla. li ma gën a yéem ci sa wax léegi léegi mooy du jox loxo jigéen. te luy raar ci jamono. kon nga xam ni kon jaar na fi nga ko war a jaarale. waaye yàlla musal na ko yàlla yàlla gën a dëgëral la mu mel ni comme ni ko kii waxee rek ñoo ngi jëm ci journée noto bi mu fas yéene ko taxawal incha allah rabbi nga am noo ci taxawee ndax ki wax na ko léegi-léegi sekk nee na yaay maam Thierno mu sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa waxoon na maam Thierno yaddu lu yum na nee na maam Thierno mooy sama loxo ndeyjoor ku bëgg séddu ci moom ngay jaar konu mel ni kon tey lu nit bëgg am ci sëñ Habib rek na jaar ci bëgg at bu ko jaaree ci am ko. waaw alhamdulilah tabaarakallaah macha allah jara eh, santaat yàlla beneen yoon. Mm-hmm. di leen gërëm. Mm-hmm. ñaanal yàlla yéen waa salaam. Mm-hmm. ngeen ba nekk organe bu mag. amiin ah, allah eh, loxoom day joor de waaw mun nañ koo firee sama digganteeg sëñ Habib. waaye mën nañoo firee it ne taawam mhm. fa tabaarikàlla mhm. mën nañ koo firee mhm. taaw sëñ Habib fa tabaarikàlla macha allah ndax eh, lépp loo xam ne njabootu nit yàlla yi doon nañ ci àndeek eh, nit yi leen njaboote woon eh, ñun pàcc nañ suñu kaala suñu ndigg pour ànd moom ci loolu nam ko bëggee noonu lañ koy defee waaye du ñun niñ ko bëggee lañ koy defee waaw fa waaw kon moom mooy mooy du ma la déggee daal mooy mooy yow effacé wu nga yow si diggante si xayib daal daanaka nga baal ma ci kàddu gi waaye néew la rek doo wax nun lay sànge rek la dul sànge suñu maam Seydi Aj Maalik wax na ko waaw fa mm-hmm. Mm-hmm. Eh, soo ko jàngee dégg bi mu am solo mm-hmm. soo déggee eh, jëfee ba moo ëpp solo kon fa tabaarkalla macha allah tey eh, ñun dañuy suñ sëñ bi day suñu référence si lu bari day suñu royuwaay ci jamono bii xam nga lu tax. Mm. Euh, mooy ñun bu fekkoon ne dañoo gimbi. Mm. gis ko mu nekk ci leneen. da mm. góor yàlla ga waxoon boo gisee toujours du may nangu di cité. Euh, nit. Euh, wax bu ne am naa dalil. mun naa wax diw moo wax nangam diw moo wax nangam. mais tey. am na ci ñoo xam ne euh, seen pas-pas mu ngi aaju ci kilifa googu. Mm. boo waxee mun nañoo taxaw pour jéem a dingat sa wax. Mm. na ci comprendre. Mm. waaye luñ ci wax jëlee ko ci nit yàlla rek. fekk na alxuraan njëkkoon nañu ko amul kenn ku ci wuteeg alxuraan. nga defee kenn indiwu ci xam-xam bu bees ci ñoom nitu yàlla yi. dañuy ñëw euh, déggin bu bees lañ indi. ci jamono euh, fatabaarikàlla jamono bañ tolloo nag jamono bi yëpp. déggin bu bees la wala yu di indi. mais xam-xam bu bees kenn indiwu ko ci. nga defee nag li ñu war a noon xam yëpp. alquran indi na ko mm. li ñu war a noonu eh, yër yëg ci alquran it addis eh, xamal nañu ko mm. kon nag bu ko defee wëli yi bu ñëwee seen téere yi moo rek lépp fatabaarkàlla mm. dégg ni jamono rek ci la ñuy sukkandiku la alquran wax ñu dégg ci alquran wala addis defee ko moom it yàlla wërsëgal na ko loolu mm. moo tax man suivre moo kenn moom laay suivre mm. fa tabaarkalla suivre googu nag ma koy suivre mm. ah moom ma may lii ma am tey fa tabaarkalla macha allah mu mel ni kon li si rajo man waxoon na a cheikhu tawxiiru min tawxiirihi kullu lazi xawlihi yadurru mu ne sëriñ bi da nga koy wekk waxuñ sax moom nga wekk waaye lépp lu ko wóor da nga ko war a wekk kon sëñ sëñ sëñ Bass ni nga mel ni tey ndax jaaduwul tamit nga am nga am message boo xam ne da nga koy lancé si mbokki taalibe yi nga xam ne ñu mel ni man mm. ba pare da see wormaal seen i kilif mm. waaw alhamdulilah euh, Cheikh Jara lu am solo la nga waxati mm. euh, question boo ñëw rek macha allah da ngay yëg ne Euh, nàmpataloo nga ci daara mm-hmm. ndax am na koo xam ne dugg na ci daara mm-hmm. waaye tarbiya ba ca war mm-hmm. jëleewu ko fa euh, waaw du daara ja nag moo esag mais jëmm ja fa duggoon lañ war na def ci moom mu sàggan ba jëlu ko moom moo esag mais du daara moo esag fa tabaarikàlla macha allah euh, ndaw ñi tey man damay faral di wax ne li fi mag ñi def ñun ñëpp mën nañ cee sëgg di ci jëriñu fi jant di fenke ba fa jant di soyee mm. fi ñu dundee téeméer at ak nangam mm. fi mag ñi def kenn mënatu ko fee def ci kaw suuf mm-hmm. te ñun ñëpp mën nañ ko jëriñoo mm-hmm. fatabaarikàlla mm-hmm. su ko defee euh, gën a bàyyi xel mag ñi gën a xormaal mag ñi boo demee Tiwaawan ka mag di Sëriñ Babacar Sy Mansour euh, nekk fa xalifa yal na ko yàlla doole ngëneel fatabaarikàlla wutewut ak Sëriñ euh, Seydi Hadj Malick Sy lenn fatabaarikàlla li Seydi Hadj Malick Sy sosoon foofa tey dafa ñëw sof ca dara mm-hmm. pour nu mu ko yokkee mm-hmm. mais wàccul yoon la mm-hmm. nga dem Touba Serigne Mountakha wutewut ak dara maam borom Touba yàlla guddal seen fan yi yëpp wutewut ak dara maam borom Touba yàlla na yàlla yokk leere mooy fa tabaarikàlla lam sosoon foofa ci dëkk ba ba mu ñëwee def cee sof continuité la nga defee nag ñun ñu bëggee noppalu nga dem Kaolack euh, Cheikh Maye Niass fa la Cheikh Ibrahima euh, sosoon mu ngi fii hmm. fa tabaarikàlla ca la ñëw sof ca lam ci sof hmm. continuer moom hmm. euh, bu ko defee yu mel noonu soo amee mag ñu mel noonu ñuy dund ak yow ci jamono yow ndaw li yaay xam sa bopp da xam sa bopp te noo leen gën a jegee gën a xam sa bopp te noo gën a xamee sa bopp di jëriñ sa àddina di jëriñ sa sone àddina parce que tey mënuñu am dors bu gën a mag mm. li fi mag ñi bàyyi li fi mm. mag ñi jàngale mm. mënuñoo xool lu gën a kawe njàngale mag ñi parce que ñoom seen concentration yëpp ci yonent yàlla Muhammad la woon sallallahu alayhi wa sallam seen naan yonent bi la woon seen lekk yonent bi la woon seen nelaw yonent bi la woon seen yeew yonent bi la woon sallallahu alayhi tëbbee leen ni leen tëbbee fa tabaarikàlla kon tey ñun buñ bëggee euh, la Serigne Mansour daan wax mm. euh, suñ amul njëgu parfum yi mm. jege nañ dend ak ku ku ku am parfum mm. benn mu mu xañal la parfum wala xeetu parfum xañ la bu ko defee macha allah fa tabarakallah tey euh, damay wax ne am na ci loo xam ne ndaw ñi war nañ koo bàyyi xel muy lan lëgg yu mag ñi ñoo ci war a góorgóorlu jëriñu si mag ñi fañ toll ci yàlla adduna bi yëpp buñ bokkoon di leen xeex di tax Mm-hmm. ñu déplacé wu la yem ni bën bën a pusa mm-hmm. yàlla cëralee na leen loolu mm-hmm. may la gu leen yàlla may ndax lañ sonnal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee ñun ñi ndaw ñi ñi gën a yaraat suñu bopp xamaat ñun ñooy kan gën a jege mag ñi ñu defal ñu tarbiye fa tabaarikàlla dox sëyru du mat te nit ku nekk soo xëyee jeegee si seexu mu rabbi mu orienté la ci lam la war orienté fa ñuy saagaa doo ci bokk fa ñuy tuuree dara doo ci bokk fa ñuy xeexee doo ci fa ñuy eh, tojee doo ci bokk mm-hmm. euh, lu ne da ngay jàpp ne mm-hmm. ki nga janoot sa eh, sa bopp nga janoot mm-hmm. loolu mooy njàngale bi ñeenti yàlla maanaam sa kon mu mel ni kon violence bu métti bi ci réew bi nga jàpp ne lan moo ko indi waaw ñàkk euh, tarbiya bi rek hmm. waaw ñàkk ëdëb maanaam teggiin dafa baax ci doomu aadama hmm. Cheikh Mamadou Mansour borom daara ji yàlla hmm. yàlla yokk leeram daf daan wax mu ne ndaw lu mu ëppalee mag na ko nëbb ba mu des benn ñu ne ko si benn boo ban la mu ne teggiin <laughs> waaw mu ne mu ne teggiin kon fatabaarikàlla teggiin boobu ndaw lu sa alawoo gudd gudd gudd bul ko jaay mag lu sa doole bëri bëri bëri bul ko jaay mag mm. lu sa alal bëgg bëri bëri bul ko ko jaay mm. mais teggin mm. loolu gën mën a wane euh, mag rek euh, gën a am doole ko fa tabaarkalla nga yaakaarante euh, ñu yaakaar si Serigne Bassir mi nga xam ne mooy muqaddamu Serigne Mouhamadou Mansour mi nga xam ne mooy muqaddamu si Habib Gueye mu Serigne Mouhamadou Mansour di général am nga yaakaar tey ban boo ñu doon jox solution tey ban solution nga ñuy jox tey boo xam tey violence bi dana xa wàññeeku ci réew mi waaw tabaarkalla solution bi mu ngi Tiwaawan mu ngi na Baye mu ngi Touba. Mm-hmm. <laughs> mu ngi Ndiassane mu ngi mm-hmm. Layène mm-hmm. nañ bàyyi xel ñooñu mm-hmm. fatabaarikàlla ma nga nooto jabaas mm-hmm. fatabaarikàlla macha mm-hmm. allah euh, solution bi foofu la nekk te euh, boo waxee Tiwaawan yóbbuwaale nga muqaddam yëpp nga wax Touba yóbbuwaale nga Cheikh yëpp uh-huh. nga wax Medina Baye yóbbuwaale nga muqaddam yëpp nga wax Layen yóbbuwaale nga ñoom ñëpp seen Cheikh fatabaarikàlla macha allah loolu la yàlla dogal te Cheikh yooyu ñooy xamat taalibe yi muqaddam yooyu ñooy xamat taalibe yi euh, ki nga xam ne bàyyi na xel Touba Touba Tivaouane mm. Medina Baye euh, Notto Diobass mm. Ndiassane mm-hmm. yàlla xam na ne du yem ak ku ko bàyyiwul xel dayol mm-hmm. xool ci télévision internet yi mm-hmm. ñu nga dégg ñuy saaga ñu nga dégg ñuy xotti xorma ñu nga dégg ñuy dugg ci dix-huit mag ñi euh, di jéem dugg ci dix-huit mag ñi doo dégg mukk kuñ la ne kii yaram Touba la wala yaram Tivaouane la wala yaram Notto Diobass la wala yaram Medina Baye la wala yaram doo dégg mukk euh, ku ci bokk fa tabaarikàlla Mm. ñeneen ñi nga xam ne nag mm. amuñu place amuñu seen bopp mm. ñuy rëj-rëj loo ci loolu mais maa ngi leen di waatal ci yàlla ne la mag ñi ku leen xormaal yàlla xormaal la ku jéem a xotti seen xorma yàlla dana xotti sa xorma bëccëgu ndar kàmm bu ko defee nag fatabaarikàlla ñu xamoon seen bopp la ñu dëkkee woon réew mi la ñu jëriñ réew mi la kon doomi réew mi dañ leen war a delloo njëkkal fatabaarikàlla mu mel ni kon saago yooyu may dégg sur réseaux sociaux yooyu nga jàpp ne ñun ñu xëy na dafa gën a fës. Mhm. dafa gën a fës ndax yi télévision yi. Mhm. moo moo gën a yokk. Mhm. fatabaarikàlla waaye bu njëkk. xëy na télévision yi melutoon nii. saaga yooyu. li wolof yi di wax naan euh, bool bu nekk lam daf lay seet. Euh, xëy na ñoom loolu lañ mos a doon. ci seen i maam waajur. loolu lañ am. Uh-huh. loolu lañ am. wax ñun ñi nga xam ne ñoo gëm mag ñi topp mm. leen bàyyi leen xel mm-hmm. lañ doon ci mag ñi mm. kenn lu ñu dégg ñuy saaga kenn du ñu dégg ñuy xaste lu mm-hmm. doomu góor di am am nañ ko mm-hmm. tabarakallah masha wax nga léegi lu am solo may ñu leen doole nga ah. tey ah. yomb yomb goo xam ne ah. euh, ku yor sa télévision mm. euh, sa kii sa euh, portable mën ngaa dugg sa ruq def sa vidéo jël publier wax lu la neex bu njëkk nag loolu amutoon mais ki def loolu na la leer na la ne yaakaaru maam Serigne Touba Mm. yaakaaru Seydi Hadj Malick mm. yaakaaru sëñ Habib Gaye mm. yaakaaru alaaji a Niass ci Kaolack maam wala maam li maamu yoonu boppam la jël rek defee ni ko neex waaye la sëñ Mansour doon wax lu neex waaye wax lu neex waaye dal la ah fa tey boo doon lancé tey euh, li xew ni tey ah. nga ci lancé message euh, Macky Sall ah. lan nga ko ci digal tey waaw euh, macha allah fa tabaaraka la ñu ngi koy nuyu ah. président de la république Macky Sall Euh, di ko jox wàccuwaay di ko yàlla jox mm-hmm. euh, fa tabaarikàlla macha allah di ko xamal di ko fàttalil mm-hmm. ne mooy responsable mm-hmm. euh, ku ànd ak moom ak ku ànd moom mooy responsable ndax moom la yàlla jiital ci kanam jullit ñi mm-hmm. kanam ñi dul jullit mm-hmm. ñu dëkkee réew mi moom la moom la yàlla dëgg euh, jiital mm-hmm. kon nag la ko ci war a mën a fekk wala mu war koo mën a taxawoo ah fa tabaarikàlla xëy na lu mu xamoon la waaye ñu koy fàttali la mooy mu bàyyi xel ñi koy wax dëgg mu bàyyi xel ñi koy wax dëgg mu bàyyi xel ñi nga xam ne euh, mu bëri dese nañ diine fatabaarikàlla te mm-hmm. lu mu yàgg yàgg yàgg it mm-hmm. diine la ñuy jàpp mm-hmm. na jël ñooñu daf leen ñuy ñuy conseil bu ko defee ñuy saaga mag ñooñu mu jël ci responsabilité mi nga xam ne moom la yàlla sàmmloo euh, wëliyu yàlla nga noonu ko dalul xel ndax yàlla ñaar la déclaré guerre ci alxuraan kuy lekk riba ak kuy noonu wëliyu waaw léegi nag wëliyu yàlla nga seetaan ci sa réew ñi di ko saaga wala ñi di ko def noo xam ne du noonu ah yàlla nañ ci yàlla musal bu rëbb yóbbam yàlla ñëwee mm. ah ba dal ci kaw réew ma mm. du bàyyi kenn bu mm. ko defee nag na ci jël matuwaayam nan gën a kii am na ci gor yoo xam ne euh, mun nga leen a ñoom saaga leen euh, mu métti leen waaye boo laalee seen pas-pas rek dafay mel ni paaka boo leen jam jam ci xol bi euh, kuñ ci jàlloon xorma wala ñuy wax la lu dul noonu daf leen di jaral lu mu leen jaral dañ la mën a dem jëli fa nga nekk ñëw teg teg la ci yoon ñu mm. deflante yoon mm. kon nag wëli yàlla yi ñoo gën a fort mm-hmm. ci kaw suuf mm-hmm. gannaaw yenent yi mm. wëli yi ñoo gën a fort kon wëli yu wëli yu yàlla lañ di wëli yu président wëli yu ministre ci ndabal yàlla la wëli yu wëli yu yàlla lañ te comme yàlla nee ku leen noonu déclaré nga ma guerre mm-hmm. te ku yàlla déclaré guerre yàlla de bu bombardé dara <laughs> déedéet <laughs> kon bu la déggee sëñ sëñ Bass mooy na jël ay daan yu dur teg seen kaw waaw macha allah. bu mm. ko defee. Mm. ci kàttanu yàlla buñ ci jàppee jàppati ci. Mm. Euh, caw cawati. bu soob yàlla ci kàttanu yàlla léegi tey ñàkk teg yéen di eh, jeex. Ah. ndax dafa am loo xam ne sentiment doxalu ko. dëgg la diine mënoo ne da ngay jëfee diine appliqué diine. Ah. di wut looy euh, seggal sa bopp. Ah. di wut looy du seggal sa bopp. li yàlla wax. Mm-hmm. ñun ñëpp nañ ci tënku. Mm-hmm. waaw mm-hmm. ki sàcc mm-hmm. am na pen bu mu teg ci kawam mm-hmm. ki njaalo am na pen bu mu teg ci kawam euh, ki tuur deret am na pen bu mu teg ci kawam mais comme ñun li ci ëpp ci euh, fii réew mi euh, dëgg-dëgg ay jullite ko dëkkee la Serigne Cheikh waxoon yàlla yàlla yokk leeram dañ ko laaj démocratie lan lay firi lan ngeen déggee démocratie waa ji ko laajoon na ko ah démocratie de mooy nga yemale ñëpp mooy mooy nga yemale ñëpp ah. Serigne Cheikh na ko déedéet loolu du démocratie démocratie ku nekk ak cër bala yàlla jox nga nangul ko ko uh-huh. loolu mooy démocratie léegi nag ñoom it nañ dégg loolu uh-huh. wax nañ ko dégg te mm-hmm. jëfee ko mm-hmm. suñ ko defee rek jàpp na ñooy mm-hmm. ki war a am fexeel mu taxaw ci mu am ki war a ñàkk fexeel taxaw ci bu bu waree ñàkk na ñàkk Mm. waaye ki war a ñàkk. Mm. nga nga di ko poussé. Mm. ne na nga am. Ah, loolu bokk ci li yàlla digle. waaw am na ci koo xam ne. daay man du wut kuy nguuru. fa tabaarikàlla. mën na cee nekk di sonn. léegi nag ki nga xam ne du nguuru ci nguuru yàlla gi. du nguuru ci nguuru àddina. nga bëgg ko poussé. ngir lan maag moom a far wala maag moom a ànd. bëgg ko imposé nit ñi. loolu it man d'accord ma ci. kon fa tabaarikàllaahu ñëw ngeeg sëñ Bass ñu kontaan lool am mbégte lool ah. dalal la. Ah. fii ci Géejawaay ànd ak chaîne YouTube bi Salam Vision mbokki internet bi mbokki YouTube bi xam naa da ngeen réactionné waaye ñu xam ne muqaddamu Serigne Habib Gueye moo toog nii waaye tamit taalibe Seydi Mouhamadou Mansour borom daara ji moo toog ni waaye taalibe Cheikhu Tijani moom moo toog nii bëgg Cheikh ba mu jeex tàkk mu mel ni rek euh, euh, sëriñ bi du ñu dem te du ñu am ñetti yaa laaj yil na laaj laata ñuy tàggoo ak yow muy di jëm ci euh, yaa ngi dégg sàmm jikko yi waaw sàmm jikko yi seen taxawaay mm-hmm. Eh, noo ci noo noo ko jàngatee. waaw macha allah eh, ñu paste fu leen. Ah. maanaam eh, daara jëleen produit. Mm. fa tabaarikàlla macha allah am na suñu rakk ju ci bokk. Mm. muy Matar. Matar Sarr mm-hmm. waaw magam bi ñuy wax Adama. Mm-hmm. sama wëllëri la. Mm-hmm. macha allah fa tabarakallah eh, ñu bokk dëkk fii ci Géejawaay. macha allah muy Adama Sarr. Eh, maa ngi koy nuyuwaale à passage eh, fa tabarakallah taxawaay bi ñu am. ñun lañ ko defal. ndax ñëpp mënu ñëw wàcc. ci terrain bi di jëf. waaye am na ci lenn ci mbooloom jullit. buñ jëfee xam nga. fadul kii fa ah, kifaaya ah, ah. am na ci lenn ci mbooloom jullit. Mm-hmm. buñ jëfee rek. yóbbaa mm-hmm. yóbbaale na ñenn ñi. Mm-hmm. kon ñoom seen eh, taxawaay boobu. Euh, mag ñi lañ ko defal mm-hmm. moo xam ñi nekk ci biir suuf moo mm-hmm. xam ñi dundee ci kaw suuf mm-hmm. mag ñi lañ ko defal te bu leen xoqatal tiite tiital bañ deltu gannaaw la góor yàlla ga waxoon euh, ca Kawlax Alaaji Ibrahima Ñas Baay yàlla na yàlla yokk leeram mu ne buñ doon jël jant bi di ko teg sama loxol ndeyjoor di jël weer bi di ko teg sama loxol càmmoñ yi du tax ma bàyyi li ma nekk waaye ñoom it ñu ngi leen di dénk loolu fa tabaarikàlla luñ leen mën a proposé proposition wu yàlla moo ëpp ëpp doole mm-hmm. ñu leen mën a fay fay mm-hmm. yàlla moo doole mm-hmm. nañ xam loolu buñ faale mukk ñee ngasaw ngasaw yi di bobu jant buy fenk warta faale bu ko jonkonu di ko bobu est que ko ñu dénk ko noonu jànq buy fenk warul faale xaj bu koy mbow kon bu ko bu koy jonkonu di ko bow moom la seriñ bi wax léegi léegi waaye sëriñ bi tamit euh, ñu ñaanal la yal na gën a guddal sa fan ñaanal sëriñ Seck yal na yàlla taxawu ko euh, mu mel ni président Macky biñ ko gagné ci élection yi amu ci benn jàngat lu dul dañu dugal affaire LGBT bi moo tax pour Sénégal yi xeex ko yow ban message nga koy lancé tey bu lay déglu tey. waaw tabaarkalla euh, xam nga li ci ëpp ci euh, politiciens yi. Mm-hmm. dañ dul bàyyi xel doomu daara yi. Mm-hmm. dañ leen dul bàyyi xel. mais mm-hmm. message yi bàyyi ko ci daara yi. doomu daara yi. nañ koy gën a déglu. duñ yokk ci waxu yàlla duñ ci wàññi. suñ ko doon bàyyi. Mm-hmm. lu ci bëri dañ gindeeku. Mm-hmm. mais politiciens yi ñi ci bëri. Mm-hmm. dañoo jàpp na ñoo gën a kawe njàng nit ñi. ñun nag rëj la rëj rëjloo ñoom. ci njàng. fa ñuy rëj rëjloo ñoom. xam. njàng. ki gëmut yàlla sax. mun naa gëstu ba xam la ci kaamil ba lépp. <laughs> waaw njàng la. Uh-huh. bu ko defee nag xam nag. leer la guy bàyyi ko sunu borom. dugg ci xolab jaam bi ko gëm. te loolu nag ku gëmul yàlla yàlla du la ko defal. Uh-huh. su ko defee. bi ñu xaw a ñàkk déglu misaal. su doomu daara yi mhm. suñ doon déglu message su doomu daara yi mhm. kenn du leen gën a jëriñu ci àdduna mhm. te àllaaxira yi kenn du leen ci gën a jëriñu ndax responsable bi leen yàlla jox kon loolu mu wax noonu su fekkoon ne bàyyi woon na xel daara yi message yi jiboon na bu yàgg message yi jiboon na bu yàgg su doon bàyyi xel daara yi euh, la fay génneeg la doomu daara yi di wax xam ne ñuy waxeewuñ seen bànneexu ba konoon lii jëll bi tey mm. mun naa bañ a demee nii mm. su lu fi ñoom mm. man jàpp ne seen loxo nga fa waaw lu fi ñoom seen loxo nga yi nekk ci biir suuf ñoo gën a garaaw sax ñuy dox est-ce que kon barakallahu ñooñu si jeexantali émission bi waaye duñu daaneel mukk te doon la laaj benn laaj bi rek comme le nouveau maire de Guédiawaye ñëw na fii toog nga ñaanal ko kii jege na ko lool te bëggoon na la laaj sat ci wàllu sport bi waaye tabarakallahu waxtu bee ñu xaaw xaj ci suñ Coupe d'Afrique bi ñu jëm ñaan ci yàlla yàlla may ñu ci ndam ci barke Seydina Muhammad waaye nag Ahmed Aïdara mi nga xam ne léegi mooy le nouveau maire ban conseil nga koy jox ci li ko yàlla dénk nii. tabaarikàlla macha allah jërëjëf Jara tabaarikàlla ah ci loxo ndey jooram. muy Seydina Amar mi. Ah, dañ leen di gis lu bari ci STV bi ñuy ànd. fii lañ toog. Mhm. jox ko ci ndigal. Mhm. mu ñëw fii. Mm-hmm. ñëwoon bi kii di takk soxna. Mm-hmm. Mm-hmm. muy Seydina Omar. bi mu ñëwee tombé seeg sëñ Habib fii ci biir kër gi. bi mu ñëwee sëñ Habib na ko. jiiteel rek moo ñu jiite tàkku san fii fa tabaarikàlla bi ñu demee it fañ doon takkee ci la sëñ Habib ne dugg na mairie bi jox nañ ko mairie bi parce que ne ni nii loxoom ah. jeex na jeex na wax naa ko jeex na ah. su ko defee nag ah, ah la ko waroon moom sëñ Habib def na ko ànd ci njabootam fa tabaarikàlla mooy Ahmed daw si na wut si ko. Mm-hmm. en tant que kilifa diine. Mm-hmm. Euh, koo xam ne sëtu yonent bi la sa alayhi wa sallam. Mm-hmm. bokk ci yonent bi di deretam. daw na wut si ko. lam xam lam man. defal noo ko. léegi nag li ci des. Ahmed delloo ko njukkal. réew mi. waxuma la géej waaye. delloo ko njukkal réew mi. mooy li réew mi soxla. na ca tegu. day bàyyi xel message su doomu daara yi moom uh-huh. doomu daara la. Uh-huh. lu mu mel. yoo ah. xam nañ bàyyam. Mm-hmm. Euh, sëriñ si Ahmed Tidiane Aydara. Mm-hmm. fa tabaarikàlla macha allah euh, Ahmed magam bu mu bokkal benn bàyyi. alaaji mm-hmm. euh, Moussa Thioy di sunu papa. fa tabaarikàlla fële ci mbir na sawax. moom lañ ko tuddee. bi mu génnee àddina. man mii la sëriñ bi yabal. maa demoon ci dëj ba. ànd ceeg lenn ci njaboot bi. kon fa tabaarikàlla ànd bi du tey. kon bu ñëwee. delloowaat buum. ca mbayu mbatt ci ndax la. Ah, dëgg-dëgg. nañ àndi woon na waajur yi àndi woon mm-hmm. loolu la delloo si waat mm-hmm. fa bu ko defee nag mm-hmm. ñun faruñu fenn furul ci peuple bi réew mi lañ far ku fonk réew mi mm. ñu fonk la mm. ku bëgg peuple bi ñu mm. bëgg la ku ànd ak peuple bi ñu ànd ak yow ku peuple bi ànd ak ñu ànd ak yow fa tabaarikàlla ndax eh, yàlla mooy doomu aadama yi doomu aadama yi ñooy yàlla booy booy xool yàlla wër ko ci doomu aadama yi boo bëggee am yàlla def ci doomu aadama yi su ko defee suñ concentré woo ci àqi doomu aadama yi li nga xam ne war naa mën a dox seen diggante ñu taxawee ko muy di muy bëccëg balaa ñuy tal lekk na ñu leen jiital nañ lekk ba suuf balaa ñuy tal naan ñeen mm. nañ naan ba màndi mm. balaa ñuy tal leeral mm. eh, ñeen jiital ñu leen jiital am leeration ba pare su ko defee seen alal toujours dee leen ndax ñoom ñoo la dénk ñoo jiital ñoo lay fay tey noo mel ñoom la seen produit nga wax dëgg yàlla soo leen bàyyi wax xel gore wax kon tabarakallahu kon eh, eh, Ahmed dina ko dina si jot waaye tamit ki nga xam ne moom moo ko jege lool di sek dina ko jotal tabarakallah di ñaan yàlla yàlla yàlla gën a guddal fan yi yàlla gën ko jàppale ci liggéey bi yàlla taxawala sàmm la mu mel ni rek ñoo ngi wàccee émission fu mu toll mais nag euh, ñu laaj la tout benn benn bi duñ koy duñ ko dépassé mooy euh, suñu na suñu suñu mbokk yi nga xam ni tey CEDEAO dal na seen kaw muy Mali tey euh, tey ban loo ban message nga war a lancer Macky Sall tey xam ne war na bàyyi xel suñu mbokk yooyu di Mali tey xam ne dañ leen embargo tey waa CEDEAO waaw alhamdulilah lu ñu metti la. Mm. lu ñu métti la ndax ay jullit dafa dëkkee. Mm. wala lu ci ëpp ci ay jullit ñoo fa dëkkee. Mm. te réew jullit la sax. waaw jullit nag. sa ngëm yàlla pour mu mat. la nga bëggal sa bopp ngay bëggal sa moromu jullit. la nga bañal sa bopp nga koy bañal. Euh, Mali suñuy dëkkandoor lañ. jullit lañ. ñëpp bëri na ci. kon tey ak luñ mën a teg ci seen kaw mm-hmm. dafa mel ni suñ kaw lañ ko teg ni mm-hmm. waa Sénégal mm-hmm. nañ ko natt si suñu bopp moom mi nga xam ne yàlla may na ko moom président Macky Sall euh, yàlla na yàlla woyofal yenam euh, fa tabaarikàlla yàlla may na ko xam naa ne mun na cee dox ay jéego na ko def ndax bu ko teggilee Mali bu doxee bañ teggil ko Mali mm-hmm. doomi Sénégal la ko defal mm-hmm. doomi Afrique la ko defal mm-hmm. mais jullitu àdduna bi la ko defal parce que jékki-jékki bokk ci mbir ñoom ñëpp ñu dal sa kaw teg benn pen am na nuñ doon waxtaanee yow lañ la doon tere mën nga koo bàyyi bu ko defee nag ci kàttanu yàlla bakkan ku ko bëgg a lor rek forcé ko boo ko forcé rek mun naa gis boppam rafet wu ci noo xam ne euh, doo mujj jëriñoo mbir ma dootu ko mujj jëriñoo te defee xelu mhm. dafa baax ci doomu aadama mhm. yàlla ba muy wax ci alxuraan it mhm. borom xel ya lay wax baqara ba naa si borom xel ya lay wax kon nag ak a doon responsable bu a dénk fexeel ji jiital sam xel te xam ne ay doomu aadama ngay jëflante jëflante loog ay mala kon fa tabarakallahu ñoo ngi ci Salam Vision ci jeexatal émission bi di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala lépp lu fi wax rek yàlla nañ ko yàlla def mu nekk njëriñ di nuy waa di ziar waa di jox sëriñ bi rek mu tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo ñu bu bu noppee ñu jox sëñ rek moom tamit mu tàggatoo ko moo tijji woon fa tabarakallah ñu ñaan da yàlla rek ba beneen incha allah wala ba ñu fekk la nootoo guy jabaas mooy ci programme bi xam ne ñoo ngi koy waajal te incha allah rabbi daañu ca teew incha allah kon sëriñ bi rek nga tàggatoo mbokki internet yi mbokki àdduna bisimilah. tabarakallah macha allah euh, jërëjëf Jara euh, kontaan nañ bég nañ mm-hmm. beneen yoon di programme Notto Diobass mm. le 12 mars mm. ci kàttanu yàlla ñu ci woo jullit ñëpp mm. ak ñu dul jullit sax mm. tàllal nañ leen loxo mm. ñu ñëw fekkee si jataay boobu te xam ne jataay yiw la jataay ngëneel la bu ko defee macha allah ñoom ñëpp nañ teew nga xam ne sunna Seydina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam la onze ba le douze fa tabaarikàlla macha allah buñ ñëwee lépp luy ngëneel dañ ko fa bàbbee te jullit mu dajeek mu ñàkk daj la miraas mooy ngëneel kon nag comme borom ngëneel la te ngëneel la ci barab ba fa ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw dajee jërëjëf Cheikh Mahamadul Basir Gueye ibnu sëñ Habib Gueye mu xaddamu Cheikh Seydou Madam Mahamadul Mansour borom daara yi Cheikh Mahamadul Basir fa nu jëm te nutu jobaas dëkk boobi le xam nga ni lépp luy xeeti berde dara du fa manqué sëñ Bas fu ne tàntal nañ fa rasulillahi waaye sëñ Habib dana ku nekk na nga ñëw ku ñëw di nga lekk ba suur di nga naan ba màndi daan fa rey ay giléem daan fa lewalatal ay nag ginaar yi dara du manqué lépp luy xeeti bari dana ko jënd teg ko foofu pour jaami yàlla yi chaque année xéwal day gën a yokk te am na ci ay programme yu mel nii ci bari bu ñuy dem ñooy jënd seen teranga yóbbaale ko waaye sëriñ bi dafa yëbb lépp ñëpp lépp mu gàddu ko man gis naa la ba tey nga jóg di xool gani daluwaay ngeen wër di xool ndax fee yóbbu nañ fa añ fu nekk ñëpp ay lekk ba suur ñëpp ay naan ba màndi kon kuy ñëw na xam ne lépp luy xeeti berde dara du fa manqué kon daal sëriñ ñu koy ñaanal yàlla yàlla saxal ko fi yàlla bàyyi ko fi waaye di gërëmaat oustaz Diarra ci professionnalisme am ci macha allah xam-xamam lu mel nii la télévision yi soxla bari na ay kër yoo xam ne tey jii ñu ngi tàkk te wax a koy wax moo koy indi ndax ñun war a dékk micro waruñu leen dékk micro bari na ñoo xam ne ñi nga wax waruñoo wax. waaye genre yi seen yar seen baax boo ko déggee li muy wax jàng al alquran xam ko am pédagogie boo waxee nga xam ne kii li muy wax da ko maîtriser ndax ku nekk da nga war a wax ci li nga xam sëñ Bas xoolee li ñu la laaj léegi ci waa Mali ak ni nga ci tontoo bari na ñoo xam ne tey boo leen ci tont buñ ci tontoon surux dañuy gën a taal waaye duñ nu fay kon yow nii nga def ak ni ngay waxee président xamal ni yow ñëpp sa njaboot loolu noonu nga waxee mosoo wax lu ñaaw ñu lay gërëm di la ndokkeel di kontaan bu baax. waa macha allah vision lii mooy seen ndax yéen li ngeen def mooy dundal mag ñi lii la mag ñi di seetaan lii la mag ñi bëgg ndax yéen promouvoirul leen ay saaga kii saaga nag gis nañ ko muy saaga rek waaye duma nañ ko bu yàgg billaay bu ngeen daje woon ak moom ba ko bi nga saaga fan nga mujjee du du leen ko nettali ndax dafa am loo xam ne mënut a baale mars ba du baale de lu ñuy gën di dem muy gën a baax rek dina gën a duma rek ñu naan waajal lu ma ko dal ñu lay duma rek di la duma rek dama ne moo tax képp ku nekk ci internet bi di saaga mag ñi xoolal fa ngay mujjee doo baax fii doo baax fa nu jëm te sa njaboot yi dañuy gën a sonn rek kon nag mbokk mi ñu leen di gërëm Serigne Bassirou ñu ngi lay sant waxtaan wi jàngaat nañ ci bu bëree bëree bëri di kontaan bu baax di la wax ni tey boo woowoon sa njaboot li nekk ndakaaru xadara bi nekk fii yow la ko Serigne bi dénk ngay doxal boo jógee taalibe yëpp jog tey boo wootoon fii kenn du fi xaj te chaque dimanche léeg-léeg gars yi ñëw fi def rajo waxtaan te li ñuy waxtaanee lépp mooy lu jëmale xadara bi kanam nanu gën a xormaal teewoon yooyu ngay dox di ko wax sëñ Habib di ko wax kon nag loolu ngeen xam nekk ngeen ci sunu xol sedd na ci di leen wax ni gàcce galaama asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf. kon fa tabarakallahu ñoo ngi ci wàccaayu émission bi di nuyu Serigne basiru di muqaddam Serigne Serigne di muqaddamu Serigne Mouhamadou Mansour borom daara ji waaye Serigne Habib moom di généralu Serigne Mouhamadou Mansour. di ko ñaanal rek ataalallahu umruhu wa ayyidahu nasara di ko ñaanal sagu tarixa bi la sagu diini ji le waaye sagu mbindee fi la man li ma gën a yéem ci ñu yéen mooy ñi may gis te bokkuñu tarixa ba pare ñu fonk juli fonk kurus foo waxee mun sëñ xasan sëñ Basir moom ma jox dog bi kon loolu rek euh, sag la ndam la yàlla na yàlla gën a guddal sa fan mu mel ni kon message rek président dina ci jot message yi sëñ law la monsieur maire Ahmed ay dana si jot message bi mbokki àddina mbokki lislaam ñoo koy waajal le douze mars fële sa nooto jabaas nooto jabaas watawarak président gëm sa bopp monsieur Bougane Gueye Dany ci bisu bi ñu jagleel Seydina Mohamed ca nootu jabaas ndax man suma kilifa la fa lay suma doole mu bëgg ma lool amee lu ma benn sare chaque weer mu fay ma di ma jàppale guddeeg bëccëg di jàppale ñu fa nekk di koo xam ni fu diine nekk mu fekk leen fa moom mi nga xam ne tey jël na doomam tuddee ko al amin di taalibe maam borom Touba loolu rek doy na kon président Bougane ñu ngi lay woo ci bis bi nga xam ni le 12 mars ci notu Diobass waaye di ci woo monsieur le maire de la ville de Guédiawaye El Hadj Ahmed Aïdara sa bis la di ci woo autorité yëpp bàyyi kenn muy ñoom Mama Ndiaye ak ñoom El Hadj Seye ak ñoom Modou Ngom bàyyiwuñu kenn ñoom bu Boussa képp koo xam ne daal yaa ngi fi ak madame Kanté da ngeen xam ne bés bi seen bis la ndax sëñ Habib Gueye mu xaddamu Cheikh Sidi Mamadou Mansour borom daara yi ku xewle su mënee ñëw dina ñëw bu mënu ñëw dina yabal ndaw mu ñëw teeru ko fa te ki muy ni bu yegsee borom daraja la waaye day boole darajaam ak daraja sëñ Habib Gueye ñëw toogee ko fa sëñ Bass daal ka yi lañ ci doon yokku di wax daal bis baa ngi noonu ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn muy président ba Diop ak ñëpp ñu ngi leen di woo le jërëjëf kon fa tabarakallahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Bienvenue sur Salam Vision.